peeñu ma saar benn walla ci li di mbir yi nara ñëw te yeesu kirist won ko yowaane ci biir peeñu lii mooy li yeesu kirist feeñal te mu tukkee ci yàlla ngir mu won ay jaamam mbir yi dégmal di ñëw yónni na malaakaam ngir mu xamal ko ab jaamam yowaana kooku mi ngi seede fii li mu gis lépp maanaam kàddu yàlla ak seede suñu seedeel Yeesu Kirist barkeel ngeen yow mi jàng ak yéen ñiy déglu wax yi jóge ca yàlla te di sàmm li ñu ci bind ndaxte waxtu wi jege na man yowaana maa leen di bind yéen juróom ñaari mboolooy ñi gëm te nekk ci diiwaanu asi ne yiw ak jàmm féete ci yéen jóge ci yàlla moom ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg yiw woowu ak jàmm jooju ñoo ngi tukkee it ci juróom ñaari xeli yàlla yi nekk ci kanamu ngangu nem yàlla tukkee it ci Yeesu Kirist seede bu takku bi moom taaw bi maanaam ki jëkk a dekki di buuri buuri ci kaw suuf yépp na ndam ak nguur féete ak Yeesu Kirist ba faw moom mi nu bëgg te yiwinu ci sunu bakkaar ak deretam ji tuuru te def nu askanu saraxalekati buur yàlla baayam nu di ko jaamu amiin gis leen mi ngi ñëw ci niir yi te ñépp dinañu teg seeni bët ci moom ba ci ñi ko jam sax te xeet yi nekk ci kaw suuf yépp dinañu jooy ndax moom waaw amiin borom bi yàlla nee na man yàlla maay alfa ak omega maay ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg man aji kàttan ji man yowaana seen mbokk di seen nawle ci fitna ci nguur ak ci muñ yu nu am ndax sunu booloo ak yéesu maa nga nekkoon ca dun ba ñuy wax patmos wàcce woon nañu ma fa ndax li doon waare kàddug yàlla tey seedeel yeesu xelum yàlla soluma ci bésu borom bi te noonu ma dégg ci sama gannaaw baat bu xumb nigliit naan bindal ci téere li ngay gis te yónnee ko juróom ñaari mboolooy yi ñi gëm ca dëkk efes samirn pergaam catiir sard filadelfi ak lawdise noonu ma gestu ngir seet ku doon wax ak man ba ma gestoo yem ci juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus gis ku taxaw ci biir làmp ya nuroo ak doomu nit musal mbubb mu gudd takk ngeñaa yu wurus ci ndiggam boppam ak karawam weex tàll ni perkaal ay bëtam di xuy ni safara ay tànkam mel ni xànjar bu yànj bu ñu xelli baatam di riir ni duusi géej mu yor ci loxool ndejooram juróom ñaari biddiiw ci ñaari boor yu ñaw di génn ci gémmiñam xar kanamam leer nàññ ni jantub njolloor naka laa ko gis di daanu ci ay tànkam ni ku dee waaye mu teg loxol ndejooram ci sama kaw ne ma bul ragal dara maay ki jëkk te may mujj maay kiy dund deewoon naa waaye maa ngi di dund ba faw yor caabi yi dee ak ju barsàq kon nag bindal li nga gis li am léegi ak li nara ami gannaaw gi juróom ñaari biddiw yi nga gis ci sama loxool ndeyjoor ak juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus yi ay mbooti yàlla lañu te lii lañuy tekki ñoo di malaakay juróom ñaari mbooloo yi ñi gëm juróom ñaari làmp yi ñoo di juróom ñaari mbooloo yi